waman iqtafa athaarahum ila yawmi ddin bokki jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi yéen ñëpp Sidi Bakar ne ginnaaw sant yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nuyu ñëpp di leen wax salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi jéggalu jaamu yàlla yi gannaaw bu mu leen nuyoo ne mi ngi jéggalu jaamu yàlla yi ginnaaw bi mu leen nuyoo dégg ngeen sama baat ni mu mel ne dégg ngeen baatam ni mu mel waylaa man mënuma wax waylaa man ne man mënuma wax mënul wax su ma doon way du mel nii ne bu doon way nag kon du mel nii président ñu ngi lay nuyu président Seydou Bakar ne ñu ngi lay nuyu bu baax. yaag soxna Marème Faye. yow soxna Marème Faye. ni ko Pape Malick waxee léegi. ni ko Pape Malick waxe léegi rek. nuyu mboolem koo àndal. nuyu nag mboolem koo àndal. te mu bokk ak liggéey jëmee ci réew mi. te mu bokk ak liggéey ci réew mi. ñu di leen tudde ay ministre ñu di leen tuddee ay ministre ñii di ministre d'État muy ministre d'État ñii di ministre d'État ñii di ministre d'État ñii di ministre conseiller ñii di ay ministre conseil ak waa assemblée yëpp ak waa assemblée yëpp euh, Pape Malick Papa Malick li mu wax li nga xam ni moom la wax ñëpp la ko waxal ñëpp la ko waxal li ma ciy teg nii nee moom li mu ciy teg nii mënoon na ñàkk mënoon naa ñàkk waaye waaye nag ku lakk mburu ku lakk mburu tudd dëkk tudd dëkk te te dañu lay xamal ni dañu lay xamal ni dañu lay xamal ni bëgg nañu bëgg nañu ndax ko amul lu dul lenn ndax ko amul lu dul lenn nekk ca di kër kër yi nekk ca di kër kër yi nga fekk ko ca ak sa ndimbal nga fekk ko ca yow ak sa ndimbal jàppale ko ci kaw ba ci suuf jàppale ko ca kaw ba ci suuf fokk mu bëgg ci yow. fokk nag kookee bëgg ci yow. wax ji doy na. wax ji doy na. waaye. waaye na. nit bu kontaanee ca la muy wax. nit bu kontaanee ca la muy wax. du ko gàttal. du ko gàttal. suñu borom tabaaraka wa taala. nee suñu borom tabaaraka wa taala. dafay wax ak yàlla Moussa alayhi salaam. dafay wax yonent yàlla Moussa alayhi salaam. laaj ko. laaj ko. laaj boo xam ni. laaj boo xam ni. tontu ba yomb na. tontu ba yomb na. mu ni ko. mu ni ko. wama tilka bi yaminika. wama bi yamini. yaa Moussa. yaa Moussa. qala hiya asaaya. qala hiya asaaya. doyoon yàlla laaju ko loo koy doye yàlla yet wa laaj na ko loo koy doye laaju ko loo koy doye laaju ko loo koy doye laaju ko loo ciy def laaju ko it loo ciy def daf ko ni rek loo ame dafa ni ko rek loo amee mu ni ko yet sama yet laa amee mu ni ko man kat sama yet laa amee atawakka wa wa aleyha وأغش بها وأغش بها وأغش وأغش بها بها على غنمي على غنمي على غنمي ولي ولي فيها فيها مآرب مآرب أخرى أخرى loolu. loolu nag. kontaan ci wax ak yàlla. kontaan moom Moussa. ci wax ak yàlla. moo waral mu guddal wax ja. moo tax moom mu guddal wax ja. jëf nag jëf nag su rafetee su rafetee nit defal la ko nit defal la ko wax ba mu ko wax ba fay ko yombul yombul waaye doy na ca rek waaye nag doy na ca rek nga ni ko jazakallahu nga ni ko jazakallahu am na am na xayran xayran njabootu bu bari bi yëpp. njabootu bu bari bi yëpp. mbég rek la mbég rek la. ñu di la sant. nee ñu di la sant nag. di sant sa premier ministre. di sant it sa premier ministre. ndax yaag moom a nekk. ndax yow yaag moom yéen ne. yaa yilif mu topp ci yow. yaa yilif mu topp ci yow. te yàqu ko. te yàqu ko nag. ñu di ko sant di ko gërëm. ñu koy sant nag di ko gërëm. di gërëm nag mbooleem koo àndal. di gërëm nag mbooleem koo àndal. te loxoom dugg ci liggéey bi. te loxoom dugg nag ci liggéey bi. waaye lépp jaare ci loxo Aly Ngouille Ndiaye. waaye lépp nag jaare ci loxo. Aly lépp jaare ci loxo. lépp jaare ci loxoom. bu dee entreprise publique. bu dee entreprise publique. bu dee privé. bu dee privé. lu mu mën doon. lu mu mën a doon. moo wax ak yow. moo wax ak yow. ba lu sotti sotti. ba lu sotti. sotti. ci kàttanu yàlla. ci kàttanu yàlla. amuñu. amuñu. ni ko Papa Malick waxee. ni ko Papa Malick waxee rek. ku sonnul ci guddi gi. ku sonnul ci guddi gi. doo am feneen foo sonne. doo am feneen foo sonne. ndax Seydi El Hadj Malick radiyallahu anhu. ndax Seydi El Hadj Malick radiyallahu anhu. dafa liñ ko nettalil. ci ni nettalee. mu ni. moom daal. moom daal. rus na daje ak jaamu yàlla yi. na daje ak jaam yàlla yi. ca kanamu yàlla. ca kanamu yàlla. di am kersa. di am kersa. kon nag kon nag mënu ludul mënu ludul fi yàlla rëdd fi yàlla rëdd mu jaar fa mu jaar fa lépp lu ci bokk nag lu ci bokk nag mu respecté ko mu respecté ko wax ni wax ni bare na lu nit am ca yàlla bare na lu nit am ca yàlla respect moo ko ko may respect moo ko ko may waaye bare na lu yomb nit jotu ca waaye bare na lu yomb nit jot ca jotu ca. jotu ca. ñàkk respect ko ko. ñàkk respect moo ko ko xañ. mu ni bi xurmatin. mu ni bi xurmatin. wasala. man qad wasala. man qad wasala. bi tarkiha bi tarkiha. fasala fasala. man qad fasala man qad fasala. mu ni nag. mu ni nag. gisul ñaari yoon. gisul ñaari yoon. benn yoon la fi yàlla teg. yàlla teg. yëgle it ni benn yoon rek fi nekk. yëgle it ni benn yoon rek moo fi ne. ni fee yoon a nga fa. ni fee nag yoon a nga fa. fee yoon a nga fa. fee it yoon a nga fa. asxaabul yamin. asxaabul yamin. asxaabu shimaal. asxaabu shimaal. man nag. man nag. benn yoon laa. benn yoon rek laa am. yoon bi ma jëm si ci man. yoon bi jëm si nag. te ma jëm ci moom. inna haada. inna haada. siraati. siraati. mustaqiman. mustaqiman. fattabicuuhu. fattabicuuhu. wala tattabicu subula. wala tattabicu subula. fatafarraqa bikum. fatafarraqa bikum. an sabiilihi. an sabiilihi. mu ni. mu ni. su ma sooboo ca yoon. su ma xasee bu suubu. man Maodo ca yoon wa. ku ma woo ci sama gannaaw ku sama gannaaw. du ma la wuyu du ma romb nga toog. ku ma romb nga toog. nga du ma la laaj loo fiy. def. ndax xam naa ni. ndax xam naa ni. entrave ngay doon ci man. entrave ngay doon ci man. danga may teree àgg. danga may teree àgg. waxit ni. waxit ni. seet na addina. seet na adduna. gisu ci lu gën a rëy. gisu ci nag lu gën rëy. Seydina Muhammad Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, dañuy waykat yi dañuy wax ne waykat yi ñoom ñooy wax naan wa ma xalaqa arrahman wa ma xalaqa arrahman shay'an shay'an li nafsihi li nafsihi siwa siwa sayyidil mahmud sayyidil mahmud wa huwa wa huwa habibu habibu mu ni mu ni ana ana min allah min allah walmuminuuna minni moo tax moo tax dayoom dayoom yàlla rek ko xam yàlla rek moo ko xam waaye moom waaye moom it moom rek la la yàlla may boppam moom la yàlla may boppam mu xam ko mu xam ko mu mel na mu mel na nag luy xeetu teraanga. luy xeeti teraanga. yàlla defal nañu ko. yàlla defal na ko moom yonent yàlla Muhammad. defal nañu ko ñun ñëpp. defal nañu ko ñun ñëpp. mu doore ci yonent bi. mu doore nag ci yonent bi. ni mu ko melal ba mu mel ko. ni mu ko melal ba mu mel ko. mu tànn ko. mu tànn ko. yónni ko yónni ko. boole ñoo ak moom. boole ñu ak moom. ñu di xeetam ñuy xeetam.